waaw li may njëkk a def mooy déjà di jaale ñi nga xam ne euh, ñàkk nañ ci seen bakkan génn nañ ci àdduna euh, muy policier bi nga xam ne euh, ñàkk na ci bakkanam di ko jaale ay mbokkam di ko jaale ministre de l'intérieur xale ya nga xam ne aussi ñu nga woon foofu ñàkk ci ay bakkan ñu ngi leen di jaale di leen ko jaale seen mbokk te di wax ne li xew Sénégal lu ñu métitlu la lu ñu méttulu la euh, parce que euh, Sénégal dafa am tradition tradition boo xam ne tradition jàmm la tradition démocratique la tradition état de droit la euh, bu fekkee ne sénégalais ak foo mun di nekk ak noo mun di day da nga am mbir ak justice bi da nga war a nekk à la disposition de la justice soo ko deful comme li ngay wax désobéissance civile parce que man du ma dugg ci ay termes da nga war a yow nga ne wuyu ma nga tiire toutes les conséquences de droit mais waruñu jël ay xale di leen manipuler di leen génn ci mbedd mi donc ba mu am ay situation yoo xam ne donc dañ ciy faatu te loolu dafa ëpp fi mu toll nii ndaxte ci euh, diggante procès boo xam ne c'est entre deux personnes yoo xam ne kenn ki mu ngi tudd Ousmane Sonko kenn ki tudd aji Sarr ñu am lu nekk seen diggante ñu ne dañ ko war a layoo ji te kenn mun a wax lu ci nekk ku ci nekk am nga ci sa gis-gis ku ci nekk am nga ci sa yaakaar mais la ca nekk comme dañu nekk ci république nekk dans un état de droit kenn rek wala benn institution rek moom mun a wax ne lii danaa ko saytu ba xam la ca nekk. donc fekkee ne aussi loolu dafa am te ñun ñëpp ñu nekk ay justiciable donc dañoo war a dem ci kanamu juridiction boobu. Euh, ku am preuve nga joxe ko ku am looy teggi tuuma nga nga nga joxe ko donc juridiction bi jël décision parce que aussi Sénégal dafa nekk dëkk boo xam ne tey ñun ñëpp ñoo ko bokk képp koo xam ne da nga yëkkati att di ko teg war nga xalaat sa dëkkandoo bi nga xam ne dafa feebar war a jóg dem hôpital war nga xalaat ki nga xam ne Sénégal daani doolam liggéey kon laat ñëpp ñu nekk ci société bi seen activité yi ñu war a def te seen yoon pour ci loolu parce que en réalité ce qui se passe c'est pas population bi moo soulevé wu non. bu dul population bi lan la. non du population bi c'est la une partie de la population mais organisée autour de parti politique donc ñooñu. pour man ñoom ñoo organisé wu parce que ñoom ngay dégg ñuy wootee naan appel à la résistance man appel à la résistance je trouve pas cette définition parce que kuy résister dañ lay dañ lay dañ lay da ngay fekk ñu agressé ñu agressé la wala ñu ñu tonc la mais appel à la résistance nit ñi nekk ci mbedd mi créer les conditions d'insécurité publique ba xal ant na ci ay xale yoo xam ne donc boo xoolee image yi may gis ni ay xale 15 ans 16 ans xale yu ndaw yoo xam ne leer na ma ne donc dañ leen entraîner ci loolu te ñi leen entraîné ay magum jëmm lañ soit ñu ngi feeñ soit feeñuñu wala ñu assimilé wu ci groupe yi di yóbbu ci xale yi donc ci situation yoo xam ne dafa dafa nekk ay situation yu désastre donc li may wax mooy c'est pas le Sénégal Sénégal jógul Sénégal au contraire dafa bëgg les Sénégal dañoo bëgg activité yi wala manifestations yi arrêté ba ñu dem ci seeni occupation donc c'est un groupe de personnes donc ñoom ñoo organisé parce que xam nga taal ñaari pono fii taal ñetti pono fii masse xale ñu ànd donc loolu euh, ku nekk euh, xam nañ ne ça va au de la de taal ay pneus quand même oui mais mais mais mais je veux dire que quand même nous sommes 17 millions de Sénégalais vous savez que les Sénégalais aujourd'hui dans l'écrasante majorité dañu soxla euh, acte violence yi arrêté ba ñu vaquer wu à leurs occupations d'accord donc c'est pas la population sénégalaise qui boo xam ne d'accord na ci lii donc c'est une partie boo xam ne aussi dañ koy def te aussi bu ñu ko doon def ci anam boo xam ne mu amul sax lu ñu ko mën a justifier mais li ñu koy justifier la d'accordul parce que dañ koy justifier parce que dañuy xeex état de droit wala dañuy xeex démocratie wala dañuy xeex justice mais c'est faux en réalité amul benn intérêt d'état de droit ou de justice ou autre bu ci am donc c'est parce que dañuy xeex parce que nit organiser organisé nañu xeex pour éviter de répondre de Merci, la justice d'accord